waaw loolu mooy problème bi. demal ma waay. non non non gérer non ku am kuréel du lakk. mu yaa xorom bi nag yow sax. non ku am kuréel du lakk. Le Sénégal est un pays de teranga. mi ngi nii c'est écrit troisième édition drapeau monsieur Mourinho. man fii laa wane parce que man fii doo ko ñëw. waaw arène nationale ba xam. waaw ma nag. tey jii ki nga xamante ni mooy. arène Seynou. waaw ndax fonk lool bésam ndax koo tuddee ñetti yoon mu ñëw. waaw kooku mel na ni moo la gën a bëgg li nga koy jox. mun ma bàyyi ñëpp bàyyi Ndakaaru lu ko mën ci xew te ñëw fii ci Ngoundiane looloo tax ma sama teewaay tey bi kon ñu ñaan si yàlla bu combat bi ci la ñuy ñëw ci décoration yi parce que temps bi moo moo xaw a xat ñaari mbëri bare bi xool leen ñu bëree ba pare bu ñu dellu see ñu def yi ak jàllale leen liste délégation bi ma waxoon ci grand combat bi muy grand et dernier combat bi incha allah ci kàttanu yàlla ay ca na mari ñëw ayca ayca allo mais Mbeya mooy y' a un problème de batterie xam na. allo jërëjëf jërëjëf ndax liggéey bi liggéey bi ba léegi ñu naan yi kon bu tawee il faut que ñu demee lii wala ñu leen ñaanal rek yàlla nañu ko teel a yàq yàq ci kàddu gi si laa ko amee ay saa yu ko dara. wax ni xam naa ko léegi. fodde allonoya ɗon allonoya ɗon kanko sadi aïcha aca attaque alvérie président combat bi waaw <laughs> booy la maa ngi koy sañ ca ginnaaw wala li ñu naan wala yóbbal te galgal ubu lamb xam naa bu doon moom jeex na bu yàgg waaye loo ci mën a dégg waa arbitre bi soufflé waat na combat ba waaw ku nekk daal dégg nañ la nga ñëwaat ban côté sa mooy gagné combat bi ñu nga lewetoo deuxième round waaw ku nekk dégg nañ la nga ñëwaat diggante jël ndañ ak ki nga xam ne mooy fils de Sengi say kii mu ngi ware Ngunjaan kii mu ngi ware Mbusna mu attention mu ngi koy téléphoné te wóorul moytu leen ma ngeen cong cong bu ñorul ne lu neexuma yéen a ngi seetaan euh, OSTV Salam TV Ngoundiane Actu ndeysaan ñu nga leweto attention gaay gay de Sengi moom ngeen jàkkaar lool noonu jël ndaañ bu leen yàqu combat bi gaay la ilaha illallah bu leen xajamal xew mi en tout cas ñoom ñaar ñu ngi dégloonte ndax combat bi moo diis ci ñoom. xëy na xëy ñamante nañu xeexee xëy na xëy la ñam arbitre may ñu ko may ñu ko. la ilaha illallah jël ndañ jël ndañ ak fils de sengi jël ndañ fils de sengi jàppante nañu ñoom ñaar japante nañu ñoom ñaar jël ndañ moo leen jox ginnaaw xaaxaa la ilaha illallah xeexee la ilaha jël ndañ moo leen xaw a jox ginnaaw ni mbaa attention attention la ilaha illallah jël ndañ daan na ko wala wala Fils de Sengi daan na ko Fils de Sengi daan na jël ndañ Fils de Sengi jaan na Diène Ndagne doole doxul jàmm doole doxul jàmm gaay doole doxul jàmm ndeysaan Diène Ndagne Fils de Sengi na ko Fils de Sengi na Diène Ndagne Fils de Sengi na Diène Ndagne jëlal ma ko sa waay te de sengi daan na jël ndañ acca ñaari baat attention attention champion champion ñaari baat combat bi métti woon na de lan moo tax mu métti non xam nga rek ji defu jàmbar daa war a métti uh-huh. laamu ji warul yomb bari sëñ Bamba